aw billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di wax asalaamaaleykum di leen nuyu di leen ziara di xamal nag ñoo ngi fii ci La Plata ci màggal nga xamante ni mooy màggal sunu maam maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ñu ànd ak waa Tivaouane TV ànd ak waa Touba TV fa rek ànd ak mbokk yi nga xamante ne ñoo ma séq di Baye Ndaw Fall ak baay njaga ñu leen di nuyu di leen ziara di nuyu mbokk yi den xamal rek tey màggal gi ah murit yeeg julit yeeg xaadir yeeg tijaan yëpp ñoo ko bokk def fii ci La Plata muy lu nu rafetlu muy lu am solo eh, ñu fa yéene nag wax Baye Ndaw mu nuyoo eh, ñu ziare ko eh, door a ñëw ci question bi asalaamaaleykum wa rahmatulah Baye Ndaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحرمة اللهم صل على محمد سيد البصري وصفي المصطفى في المصري mbokki juliti mbokki dëkkandoo yi mbokki taalibe yi di addu fii ci Thiénaba euh, Tivaouane Tivaouane TV ak euh, Touba TV Argentine ci bis bu am solo bi nga xam ne mooy bisub Xaadimul Moustapha di jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy taxawal fii ci La Plata ci province bi ñu koy wax Berisso di seq ak palaato bi sama mbokk sama xarit Ndiaga Ka ak euh, Mortala Mbaye jógee ba capital di am ay kàddu yu nu joxante rek ci bis bu nga xam ne mooy bis bu am solo muy bisu jullit yëpp ci kaw suuf ndax sunu maam Xaadimul Moustapha rahimahullahu taala yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëgal te tax nu ci barkeem bis bi ba mu koy def jullit yàlla yëpp yëpp yëpp yëpp tax na waaw kon ba tax na kon ci loolu lan bëgg a addu kàddu yu néew rek di doon nuyoo rek doon ubbiku di jox sëñ Mor Talla Mbaye mu ba ci kanam incha allahu taala jërëjëf jërëjëf Baye Ndao dañuy ñëw rek ci question bi mooy tey ji lu war a jataay bi fii nga xamante ni mooy màggal gi ngeen àndandoog suñu mbokk murit yi di lu rafetlu di lu am solo eh, ñu la ci laaj rek eh, lan nga ne ci sànni ay kàddu ak eh, seen teewaay ci bés bi ak seen taxawaay ci bés bi lan moo ko waral. waaw ah, jërëjëf sëñ Mor Talla laaj bi am na solo kontaan naa ci trop li waral bés bi mooy la mu waxan rek dama jóg ngir liggéeyal yaa jaare ko ci yonent bi ba yàlla jox ko li mu ko jox ci daraja yonent bi mu wàcc ci kaw suuf jullit yëpp seq ko comme na ko yàlla wax ci alquran rek innamal mu'minuna ixwatan fa aslihu bayna axawaykum nee na jullit yëpp yàlla nee na jullit yëpp yow Muhammad ay mbokk lan kon li war mooy ngeen yéwénal ci seen diggante moo waral lii ndax euh, lislaam moom benn la ba tax na kon loolu dong moo waral sunu taxawaay ci bis bi tax at mu jot at at mu jot njàngum alxuraan bi ñoo koy jiite ci sunu loxo lañ koy teg ñu rafetlu ko lool ànd koog ñoom ba bis jeex ndax mooy li gudd gàtt daal mooy bis moom mooy bisub jullit yëpp la mbégum jullit yëpp la ba tax na lépp lu ci waay yëngutu rek di nga ci gis yokkute ci biir ak ci di ñaan yàlla saa at mi ñëwete rek fekk nu fi ak man ak tal koy def ànd koog ñoom ñu rafetlu ko lool nag ñu rafetlu ko lool ndax wax dëgg yàlla depuis ban ko fi dalee màggal ba nëgëni mhm. saa su ne ñooy nekk ci kanam mhm. ñu jox nu lépp jébbal nu lépp mhm. ñu ànd ko ñoom ba bis bi jeex ngir ni ko boroom bis bi waxe xéewal yi ko yàlla defal ak liggéey bi mu doon liggéeyal ngir euh, jullit yi am am jàmm am texe mu yàlla jox ko cër booba mu ne nag lottu naa ci sant yàlla kon na mu jullit yëpp sant la yàlla moo waral bisam bii tàmbalee ko ci alxuraanul karim nga xam ne moom rek ci la tegan tànkam ak sunna si yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama ba yàlla jox ko lim lim ko jox ba tax na kon alxuraanul karim ji moom leen fi jëkke jàng nañ fi ñetti kaamil ak kaamil bu jëkk jëkk na jàng muy ñeenti kaamil salaatu ala nabi kenn xamul nu mu toll berna itam nam ko waxee rek la ko tàmbali ci gileem xar bëy nag lépp lu dagan loo xam ne rek ab jullit dina ko xéwloo rek nee na nas ma ko defal ci bis bi santale ma ko yàlla waaw ci gudd loolu loolu moo waral bis bi sunu teewaay ah, jërëjëf Baye Ndao dañuy ñëwaat ci beneen question boo xamante ni si diggante mag ñu baax ñi di maam Cheikh Ahmadou Bamba di maam maam El Hadj Malick dañu doon rattaxale diggante yi maam Baye Niass ak ñoom tey jii dafa wane ni loolu moom ngeen doxale fii ci kër gi muy bés bi nga xamante ne mooy màggal gi ndax gis naa fi ngeen jàng fi alxuraan bokk ko euh, jàng fi ay jàng yu neex ay xasida maam El Hadj Malick yu am solo euh, ñii ñuy jàng fi ay xasida yoo xamante ne maam Cheikh Ahmadou Bamba yu am solo rafet lu naa maanaam jataay bi ni mu rafet rafetloo euh, lan mooy seen secret. waaw secret bi moom mooy comme comme ni ma la ko waxee rek. ci ni yàlla waxe ci alxuraan rek. Mhm. waaw lam ni innamal mu'minuuna ixwatun mhm. julit yëpp ay mbokk lan la war mooy yëwénal mhm. te ka mag mag ñi foofu leen tegeen seen tànkan di yëwénal ba noppi nag doon ay mbokk waaw maam borom Touba ak maam Alhaji Malick ay mbokk lan mbokk yi ba tax na muy bu konte Ndiassane mm-hmm. maam Limaamu mm-hmm. Seydil Mujaahidin maam Ahmadu Seck mm-hmm. Akbar ca cene ba ak euh, maam Limaamu Laay mag ñëpp ñoo bokkan lu ñu bëgg bokkan la ñu bañ ndax xeex diina xeex lislaam ba lépp loo xam ne seen tànk fan ko tegan rek mhm. mooy diina jëm kanam mhm. jullit yi ànd nekk benn mhm. loolu moo doon seen moo waral bis bi nag loolu mooy secret bis bi jërëjëf waaw eh, jërëjëf Baye Ndao allah kàddu yi am na solo ñoo ngi lay sant di la gërëm eh, di la ñaanal yàlla yàlla na la yàlla dafa jàmm ak tawfeex ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam eh, dañuy ñëw rek ci nga xamante ne mooy Baye Ndiaga di organisateur macha allah daanaka li nga gis loo xamante ni lépp li nga xamante ni ci wàllu sonorisation ci wàllu caméra eh, ci wàllu ni ñu koy doxalee ci organisation ba nga xamante ni xéewal yeeg yëpp teew na eh, maanaam macha allah def na ko mu am solo kon ne lay bàyyi nga nuyoo rek ñu recevoir incha allah ci question yi. aousu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lasi laa naabudu ila iyahu muxlisina lahu diin walaw karihal kafirun allahuma muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi sawil mayamin e, sëriñ Talla ñoo ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di la siyaare sama mbokk mi sama xarit comme ni mu ko waxee Baye Ndaw ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax di wax ci kàddu secrétaire u daayira bi ñun la yàlla dogal ñun ñooy secrétaire bi e, léegi sax maa ngi wër jëwlin dëkk bëgg naa lépp loo xam dama koy wax ma jëlee ko ci ndigalam waaye xam naa ne su ma ko ko waxeet waaw lay wax kon kon bisimilah eh, di la nuyu bu baax di la siyaar di la dalal di la sant bu baax yow di la gërëm xam naa ci kanam sax ñu gën a wax mbokk yi gën a leeral mbokk yi kere bañ ñu bëggee sonoré station bi ba jot la eh, wax ja nga ñu ca wax muy waxi jullit ak moroom ja waxe ko nga xam ne xam na ni ci bis bi la kenn boolewu ko ci ndax xam ni ci la bokk jooja wax ju rafet da nga ca wax te ma jël audio yi envoyé ko ci groupe bi ñëpp dégg ko ñëpp di ko rafetlu di la ci sant di la ci gërëm kon daal ñoo ngi lay xamal ni kontaan loolu ci bu baax baax a baax jërëjëf sëñ Talla en tant que euh, général mm-hmm. wàllu lu jëm wàllu màggal mm-hmm. maanaam lan nga gis organisation bi réussir bi mm-hmm. ngay wax mbokk yi nga xamante ne yéen a bokk liggéey bi du taalibe waaw xanaa sëñ Talla di sant yàlla bu baax a baax rek di sant yàlla bu baax a baax ndax tey réussite boo fi gis rek la doon suñu mébét yëpp mooy mu kawee sunu njort tey moo nekk ca xolub taala moo nekk ca xolub baay ndaw ndax ku ci nekk bëgg na bis bi nu mu taaroo rek mu gën a romb loola waaye nag nii la ko yàlla dogale ndax programme boo jàll rek da lay jàngal ba ci sa kanam e, ñu ngi sant yàlla bu baax ma ndax dëkk bi muy La Plata dañu fee nekk ak jëwrin joo nga xam ni nday ji seex la njaaxaanaay la tëdd muy Moustapha Fall jëwrin di ko mën a jiite mbooloo di ko baax di ko yiw koo nga xam ni wax dëgg yàlla ku mu soo soo soo nekkee moom deux mois fokk nga jël jikkoom ñu nag ci loolu rek la ñuy dox lépp ñu ko dox ci ndigal ak fulla ak jom dëkk bi nag yaatuwut waaye programme bi li tax du diis nag mooy bu fekkente ne da nekk say mbokk ci biiru dëkk te loo yëkkati ñu jàpp ca programme du mën a diis te ñi nga xam ni ñooy waa Jamia Seex tarixa yi fi nekk yëpp di benn lenn loo fi yëkkati ñoom ñëpp a koy àndandoo te yaakaar naa ne lu kenn war a yanu bu ko yanoo mën naa woyof tooy looloo tax nag moom itam mbir mi woyof na toy ndax yaakaar naa ne ba nga dikkee ba léegi muy ci alxuraan ji muy ci njàng mi gis nga ni ñoom ñoo nekk ca kanam di ko doxal bu fekkente ni yow mën ngaa dem defi leen nga defi leneen looloo tax programme bi mënta tiit mënta mënta diis ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu sàmmal ñu kóllëre googu ñu wéy ak moom ba ca kanam Amin jërëjëf euh, bàyyi Ndiaga macha allah li wax am na solo mm. maanaam comme le secrétaire général. Mm. daanaka moom daanaka mm. liggéey bi. lépp ci loxoom lay nekk te ñu yombalal loxo. comme ni nga ko waxee rek. boo nekkee ki nit. Euh, ñu jiital euh, wax dëgg yàlla. te loo bëgg def ñu defal la ko. liggéey bi dina yomb. beneen bi maanaam lan moo si secret ba nga xamante ne lii nga xamante ne def ngeen ko tey. bu réussir nii. Mm-hmm. macha allah mbokk yëpp ñu wuy si leen. Mm-hmm. di nekk lu am solo. Mhm. tubaab yi yeeg. Mhm. Euh, suñu mbokk sénégalais yi kenn desul. Mhm. yàlla dafa réussir ba kawe suñu njort. ñaan yàlla yàlla na sax. yàlla xam déwénee euh, mu dàq bi waaw secret bi sëñ Talla ginnaaw bu ñu sant yàlla passé wul rek ñu xam li li ñu nekk mooy lan ndax euh, bu fekkente ni ñi nga xam ne dañoo xaw a jàng arab sax di ngeen xam a mën a fayal ci li may wax. mooy xitma ak amal day ñaari mbir yoo nga xam dañoo xaw a bokk dañoo xaw a jigéen te bokkuñu ndax da gis nit ko nga xam ni dafa impliado sëñ sëñ taala moo nekk impliadoom saa yow wàcce da lay fay xaalis di la fay sa salaire waaye chaque jour boo sañan heure wàcc balaa moo jot mu wàcce la xitma nag mooy liggéey bi nga xam ne danga nga ci liggéey di ci liggéeyal suñ borom bi subhanahu wa taala liggéey boobu doo bëgg mu jeex doo ko wutal fu muy yem te pourtant kenn yëkkatiwul xaalis fay la ko ca ngëm-ngëm googu nag liggéey boo koy doxee rek eh, man nga cee am lu bari ndax ngëm-ngëm ba ngay doxe mooy wóor na ma ni ki may liggéeyal wala ñi may liggéeyal su ëllëgee suñ demee ba kenn ku nekk wéet sa bàmmeel man na faa feeñ loolu rek moo tax ñuy liggéey ndax suñ mag ñu baax ñi nga xam ni nekk nañ fi ba jógee fi buñ dikkee ba fii ba ci Argentine ku leen waxaat ne ni ñi ngi fii tiijaan ak murit ak xaadir ak laay ñëpp daje fi di tudd tur yàlla wu sell wi du leen bett ndax ñoom amoon nañ ba gis-gis suñ borom mayen nañ leen ñuy gis lu ñëwagul démb donte ne nekkuñu ci kaw foofu ndax loola moo doon seen liggéey amul kenn ci ñoom koo nga xam ni la nga doon liggéey sa jëmmi bopp ji daa dax ak njaboot a taxaan ko doon liggéey tey jóge nañ fi seen njaboot gi ñu ngi yari njaboot di yar yeneen njaboot seen njaboot yooyu di yar yeneen njaboot ba koo ci gis ak fu di jëm si àdduna bi day dem yóbbaale diineem kon loolu ñoom ñoo ñu ko defal kon secret ba paasuwul ludul ma koy waxaat ñi nga xam ne sañ ko wax ñu gëm suñu mag ñi te doyloo leen te wóolu leen te bañ a jéggi seen jàngale mi te xam ne mel nañ jàngale mu weesu seen jàngale mi amu fi ndax ñoom te yonent ba la ñuy toxale andi ci ñun ñun ñi nga xam ne nañ ko andi nag nañ ko gëm bu baax a baax jamono ku ne xam ne toll na foo nga xam ni yàqkat yi bari na waaye yaakaar naa ni ku gis bàyyi ndaw gis sëñ taala euh, ñu saytaane mucc say tënal seytaane loolu nag ñi leen ko defal du du ngóor ak bàyyi ndaw du ngóor ak taala waaye ngóor maam alaaj Malick la kon nañu xam ne ñu mag ñi defal bu baax a baax ñu téye ko dëggam ko loolu mooy secret bi mag ñi secret bi jërëjëf eh, jazakallahu xeyran lan ngay tëjee incha allah comme eh, ñuy war a jël président ñeneen lan ngay tëjee tey waaw xanaa tëj bi mooy di sant yàlla rek di sant mbooloo mi fi teew ñëpp rek di leen wax ni leen ñu gën a àndandoo gën a góorgóorloo te ànd nag bu mu doon rek nañu ànd ci dëgg ndax euh, dëgg mooy jëkk te mooy mujj te ñaari nit yoo nga xam ne yéen a ngi ànd di dem te dëgg loolu ko bu ëllëgee di ngeen soxla dëgg dëgg ni meeng kon nañ ñu ànd ci dëgg euh, te damay faral di wax ni ay jullit bu ñu àndee ku nekk day tane morom ja tey jii li daayira bi réew amul sonorisation yow yaa ñu ko indil ni leen laaju ma leen ci dara lu ngeen ma jox baax na kon am nga loonu mënal tey kon nañuy séq jàmm di yéeneente jàmm ñun ñëpp benn lan te xam ni comme noonu ma ko waxee rek dañoo bokk lenn lu mënta séddoo muy lislaam bokk suñu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam te kenn koo ci ni gëmoo yonente moom ma taxaw xeex ak kon ñun ñëpp ñu xam ni ñu bokk rek te xam ni ni ma koy faral di waxee rek ay yëkk lan yu nekk ci àll bi am na ñu nu soxla nag waaye xam na ni ñi ma wunoo songandoo bëgg nañ cee song benn par benn bu fekkente ni xaw na maa dégg tuuti bëgg na noo song benn par benn waaye nan lank te taqaloo mhm. te xam ni benn bu nangu ñu song sa morom nga taxaw di ko seetaan bu ëllëgee dinañ la song yow mhm. kon nag li may tëjee mooy di sant yàlla bu baax a baax mhm. di sant mbooloo mi yëpp Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag li mu nu jàngaleen loolu ci li ñuy dox bu ma gisee taala bu ma gisee bay ndaw Sëriñ Tuubaa dañoo wax ne wa atasimu bi hablillahi yàlla dafa wax ne wa atasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu Sëriñ Tuubaa dafa dikk ci eh, tasawudi sixaar mu ni yaa ayyuhaa laa tastaxilu anil hudaa wa bil ulumi fa astaxilu dafa ni ni ngeen takkoo képp koo nga xam ne da ngeen di fu ngeen ko fekk ma ngay tudd yàlla yéen ndaw ñi bu leen soxla wu ludul ak njub te xam ne ni ak njub mooy li ci nekk son mag ñi li mu ñu liggéeyal du du loo xam ni dañuy toog rek euh, euh, di nelaw waaye loo nga xam ne ñun dañ ko répété la kon maa ngi sant yàlla bu baax baax di leen sant sëñ taala di ko répété baax di ko séeréel mbooloo mi ñëpp ni am nga cant waa La Plata gépp ci ndigalal jëwrin am nga cant waa La Plata gépp ah yàlla na suñu borom bi suturaal ba sa matériel bi bu ëllëgee lépp loo nga xam ne soxna suñu borom kattan ba nga amee ko ñoo ngi nuyu ñëpp nag di jaajëfal ñëpp jërëjëf sëñ Talla eh, jërëjëf mbokk yi kon dañuy ñëw rek dem ci beneen fànn incha allah waxtaan ak euh, président ak waxtaan ak euh, organisateurs yi incha allah ñu xool nañ la ñuy